Mm-hmm. alors euh, nous sommes aussi euh, ki n'a xam que moo euh, dossier yu mel transmettre au procureur de la République ginnaaw suñu nommé nouveau chef de juridiction et de parquet par le conseil supérieur de la magistrature est-ce que nous sous entendons par là que Ben procureur Moray a gérer Abdou Karim Diop. ah bien sûr que oui Abdou Karim Diop. <laughs> yow xam nga Abdou Karim Diop mënatul mënul mënul mënul Mm. Abdou Karim Diop dem nañ ba dañ ko traité un procureur de Macky Sall ñi ñu fi jàpp ñëpp moo leen jàppalu woon hmm? ñi ñu fi jàpp ñëpp pratiquement moo leen jàppalu te suñu bëree bëri lam leen jàppee woon ak teg tegoon leen ko tegoon leen ko woon yoon affaire compte bii gis nga lu si théorisé woon. ah. tey la gënoon yàggal Ousmane Sonko ci kaso ba moom la woon. Mm. tu non seulement nangu loo reconnaître ni compte la selon kon ni ko loi bi tëralee. mais yaa ngi gën a def toujours lu koy gën a maintenir ci kaso bi tey justice Sénégal gis nga fa mu tolloon Fallou une justice à deux vitesses demoon nañ ba plonger le Sénégal def ko un Sénégal à deux à deux vitesses. Hmm. Sénégal boo xam ne dafa mel ni ñaari Sénégal la ñii ñooy sénégalais yi war a dund teg dara du leen dal justice du am ci ñoom wàll ñii mooy sénégalais yoo xam bu ñu sëqatee sax yoon jàpp leen daal di leen tëj. loolu moo fi amoon te moom moo doon procureur bi. Hmm. kon jàpp naa ni du yàgg yoon ak ñii fi ne. di nga xëy dégg wàccee nañ ko comme nañu wàccee. mais su nekkee euh, ñu né mi ngi gérer. la la gérer. parce que temps yi. non non non xam nga bu gérer tay bu gérer tay ça à dire duñu xol xool gérer teyam démbam la ñuy xool ba paré session wa session am lañuy xol ba paré waaw session am lañuy xol xool ba pare. Hmm. te nag bu ñu defee état des lieux si gestion am da ngay xam ni c'était pas une gestion appréciée par les Sénégalais quand même quoi que l'on puisse dire tay direction yi ñi ñu bëri ñi ñu wàccee c'est ñi ñi ñëw di leen wut ñu ngi def état des lieux pour xam ki ñu dénkoon naka la mais la gestion de Abdou Karim Diop hein en matière de la justice n'était pas une gestion appréciée véritablement par les Sénégalais. Mm. Oui. donc euh, donc tay suñu xëy xëy ñu ne Abdou Karim. du la bett du muy bett ah man de du ma bett. Hmm. wax dëgg yàlla du ma bett de du ma bett benn yoon waaw. xam ku muy bett nag parce que yàgg naa la ko wax nag. Hmm. waaw waaw jàpp naa ne daal fañ jaarale Thiendella Fall foofu la gaa yi jëm moom Fallou. Hmm. waaw. alors donc mi noonu exactement euh, Pape Alé Niang mu daal di jàpp ni euh, dem vers des arrestations imminentes madame. lu yàgg du dara incha dina am ñu bëri ñu teg loxo euh, fii si li que mu Sénégal donc jàpp leen itam li nga que mu di de dossier dinañ ko dénk ki qui xam que mu le procureur de la République ginnaaw suñu nommé li nga que mu chef yu yees yi nga xam ni itam diriger exactement parquet bi ak conseil supérieur de la magistrature donc la sous-entendre que ni euh, n'a que Abdou Karim Diop comme ça sont reconnus si dina que modi que mel le président Bassirou Diomaye premier ministre qui n'a que Ousmane Sonko donc il semble euh, prêt euh, justement il déterminé à poursuivre l'opération de reddition euh, des comptes comme ni ko sako di sàkko euh, si ñom ku ci nek rek ñu daal di war a mën sa alors sëriñ euh, ñi ñëw pour nak euh japp nga ni ñooñu war nañ leen daal di loolu wala kon ku ñëw pour ramousser sëriñ. ah loolu la la ci ah. président de la république waxoon. ku ñëw ko pour rembourser kay mëna ñu la ki sa mën la baal ah président moo wala ko ñu compalaat la. le président xaw ma nak si pour attirer les voleurs ou pas mais. en tout cas te jàpp naa ne nag Fallou xam nga am na ñoo xamante ni dañuy si suuf ah. ah. dafa mel ni daa daa dégg ne. non noonu lay demee sax am ñoo xam ne dañuy rembourser suuf de des fois nga gis koo xam tuumal nañ ko wala rapport épinglé nañ ko ba ñuy jàpp ni ba ñu jàpp ko xam ni moo def. Mm. nga xëy génn ko muy taxawaaloog di dox. fekk mm. fay na bu yàgg. xam nga am na yoo xam ne nag état du ko du ko révélé quoi. Mm. secret d'état. waaw yow du ko révélé quoi xam nga waaw c'est la dignité humaine quoi mais la leen président di wax c'est la voie la plus simple. ku jàpp ni jël nga te mu leer jël nga ñi jël xam nañ ñi jël nañ ñi jël xam nga xam nañ seen bopp dem delloo si. mais am na ñuy tenir tête état. waaw bu boobaa nag luñ ci góobee gar ko. ndax am na ñoo xam taxaw neen fi ñu ne euh, kenn du leen génneel dara. dafa de loolu du yaa koy définiral sa bopp c'est la justice qui va définir cela est-ce que yow mi mu ngi mel ne nga toog nga ni bañ la xamee ba léegi ba nga juddoo ba léegi defoo lu la yoon bu mën a mën a mën a téye loolu lay nuru. dam dafa am yo xamanteni ku koy wax demal nga ka demal ba ca kanam yoon. Hmm. nga nga jakalo ak yoon. nga wax ni yoon man ken munuma tey ci dara yoon a koy définir en tout cas rapport yang fi nañ tey rek te tek te te ñu deglu deglu ku deful mom amuñu intérêt pour tey la nak bu boba sax mom injustice lay doon dotul doon démocratie ku deful. fallu ku hmm. deful ken dula tey hmm. ken dula tey la téye la woon ku deful dañ lay baye nga ñibi loolu moy deug loolu moy yoon. mais nag ku def te sax li su commencé sax da fay dindi bépp soupçon bi nga xamni tam itam ñi ñu ko doon waxtane ay protocole Baye Sogui Cap Manuel. mais mais et tant d'autres et d'autres. waaw xam nga. du yëpp day euh, dafay day yow day dañ. xoolal parce que yéxay bi jaxalon na. Sénégalais man je ne crois pas je ne crois pas de protocole je ne crois pas de protocole c'est mon ultime conviction hein. Hmm. je n'ai jamais cru qu'il y a un protocole qui lie, Ousmane Sonko et, l'ancien président Macky Je ne jamais. Je n'ai je, je jamais cru à ça. Parce que les démarches des nouvelles autorités. Le président Macky Sall dit yaa koy dindi décret il y a koy effacé ay nitam mais quand protocole le protocole là la intérêt pour pour signer Macky protocole pour l'homme. ban intérêt lañ war a am ban intérêt lañ war a proto lañ war a signer protocole ak Macky Sall Macky mi def tout lépp pour bañ ñu nekk candidat Macky nekkam nekku basiiru kandidaa ji da ko da ko bett moo tax mu buggoon a tas élection yi ah c'est parce que tout simplement Ousmane Sonko a désué son stratégie pour euh, sa stratégie neutraliser. Hmm. jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas de protocole qui lie ces nouvelles autorités là avec Macky je ne le crois pas jusqu'à preuve du contraire hein. jusqu'à preuve du contraire parce que les démarches. les nouvelles ay ay yi ma gis nii. fàllu mm. mais démarches yi ma gis nii loo ko di doxe mënul ñii mënuñu ko di doxee ba pare ñu naan am na protocole bu leen lié ak président Macky Sall mënul ne Ahmed Suzanne Camara fu mu bokk su ñoom la bokk nekkul ci kaso bi. Euh, kële na le Bah Diakhaté fu mu nekk nekkul ci kaso bi. est-ce que yaa ngi dégg. assemblée nationale la ñu bëggoon ci déclaration de politique générale bi kat moo ci mujj daanu. Mm. du ñuy ñëw mujj àndam. tu as yi ñu génn lu ne def nañ ko pour neutraliser gars yi pour bu ñu am candidat ba ñu choisir candidat la Macky jël décision bëgg a tes élection yi ñii ñëw falu yenn décret yi président Macky Sall tegoon ñu commencé di ko dindi te mbir mi day gën a leer de kon jàpp naa ni jusqu'à preuve nag du contraire laa wax gisuma protocol kii lii ces deux hommes là. on alors ah. donc mi noonu exactement par rapport ak li nga xam nekk moo suñu premier ponku ñu li nga xam nekk moo rapport yi donc en gros grosso do jàppale ni tam fu mu toll nii le président Bassirou Diomaye diar fay pare pour dal di koy li nga xam nekk moo di ni ci euh, kanam yoon ak walu yonal te conseil supérieur de la magistrature dinañ ko dal di changer way tam parquet bi aussi dinañ ko dal di changer ginaaw yoy de changement dinañ jébbal li nga xam tam itam jot ko dal di liggéey jébbal ko procureur peut être bu yes bi mu fassé dal di amal li nga xam nekk moo di liggéey bu yatu nga par rapport ak li nga xam nekk moo aux attentes euh, euh, yu askan wi ñu daal di génnee euh, gox gox yi alalu askan wi alors ñu daal di jàll si leneen euh, sànq yaa wax Ahmed Camara parlant de lui mm, ñu gis ni tey jii.